ndax loolu tàcc ko bu baax a baax a baax rek ci li nga xam ne moo di fii nga xam ne ay xaritam ay doomi ndeyam ay jarbaatina bu mouvement pour le développement et de l'entraide waaye maa ngi waaj a yëkkati tel foo teew fii jëmmal say ay rakk ak sa ay jarbaat ci lii nga xam ne moom la ñuy def ñoo ngi nuyu bu baax le représentant de laay ma muy monsieur Ka di nuyu Pa Abou Camara ànd ak le ministre ak délégation bi ànd ak ministre bi yëpp ñoo ngi nuyu suñu baay suñu maam suñu xarit suñu soppe muy baay xaalis Cissé nekk suñu chef de quartier te ñu nangul ko ko ndax ak mbaaxam ak yaroom ak ñi nga xam ne noonu la yore njabootam. ñoo ngi nuyu bu baax ki nga xam ne mooy suñu mag di nijaay ci ñenn ñi yabal fi délégation bu mag muy Omar sàmb ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax di ziar bu baax délégation bi ñoo ngi nuyu ñi nga xam ne ñoo waral bis bi mu am nekk ci ñaari vole bi ci jiitu di suñu parrain yi ak sunu marraine nga xam ne ñoom dañuy kenn ci ñun ñuy kenn ci ñoom waaye di nuyu tamit élèves yi nga xam ne tey ñoo fi teew waral bis bi ñoo ngi nuyu bu baax suñu parents yi nga xam ne ñoo fi nekk di nuyu invité yi di nuyu mbooloo mi yépp gan ak dëkk mag ak ndaw ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu soo leen ma ko mayee ma def benn allocution rek en français avant mooy ñëw ci li nga xam ne moom mooy wàllu olof monsieur les khalifes généraux monsieur le ministre monsieur le chef de quartier chers parrains et marraines chers parents chers invités chers élèves récipiendaires asalaamaaleykum Tànn Ngoye Touré aussi ñu ngi lay nuyu moom mi fi représenté jigéen ñi C'est avec le cœur rempli d'allégresse que je m'apprête à prononcer ces mots. Étant des jeunes de la localité de Kercher, qui nous a beaucoup donné, c'est pour nous un devoir de participer à l'amélioration du cadre de vie, du bien-être des populations et du développement de notre localité. C'est ce, qui nous, a poussé à réfléchir et à mettre en place ce mouvement. Mouvement pour le développement et l'entraide. And de faire mouvement qui sera un moyen de nous regrouper, d'analyser et d'apporter des solutions aux problèmes et manquements constatés à Kercher. Depuis sa création, le mouvement a pu dérouler des activités de renforcement de, de, de la sécurité de Kercher à travers un, un important renforcement d'éclairage public, la réparation et la pose de 60 lampes et lanternes et plus l'éclairage de la route principale marché Kardega et Kerbailay, totalement repris. À cela s'ajoute la sensibilisation sur la COVID-19 avec la de plus de 2000 masques et 70 ménages visités et sensibilisés sur les gestes barrières avec l'utilisation des gels hydroalcooliques, de se laver les mains entre autres. Nous sommes encore réunis aujourd'hui pour poser un, un nouvel acte à l'endroit de l'éducation des enfants de notre localité par le biais d'une remise de kits scolaires aux élèves. Cette activité est un soutien aux parents de Kircher en ces temps durs où les charges quotidiennes ne cessent de grimper, mais surtout à nos petites sœurs et frères d'avoir une bonne rentrée scolaire 2021 Le mouvement accorde une importance capitale à l'éducation de nos frères et sœurs issus de Kircher de Diourbel en général et ne ménagera aucun effort pour réaliser d'autres activités allant dans ce sens pour le renforcement de l'éducation pour tous. Chers élèves, je vous appelle à un engagement sans faille vis à -vis de vos éducations. À l'éducation vient le savoir, la culture, surtout l'opportunité d'avoir un emploi, mais un emploi décent. Aller à l'école n'a pas seulement un impact sur l'avenir des enfants, mais sur l'avenir de leur famille, de leurs amis et de leur communauté. L'éducation est un des piliers essentiels pour le développement d'un quartier, voire d'une nation. À nos parents, chers parrains et marraines, pour vocation l'enseignement, c'est certain. Votre humeur, votre créativité, votre énergie, font de vous des instituteurs émérites. Vous avez toujours su s'intéresser vos élèves eux-mêmes les plus récalcitrants. Vous aviez pour but de changer le cours des choses, vous y êtes parvenu. Je sais que vous n'oublierez jamais le bruit de la cloche qui sonne, les pas nerveux des élèves, les cris de joie de la récréation, les confiscations des billes, des cartes et autres jouets. Votre départ à la retraite est un repos bien mérité, car vous avez mis du cœur à la tâche durant toute votre carrière sans jamais baisser les bras. Nous sommes tristes de votre départ à la retraite tranquille et bien mérité. Vous faites notre honneur, notre fierté. Nous, membres de ce mouvement, lançons un appel, un vibrant appel à nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, sans distinction quelconque, à adhérer massivement au mouvement And Defar Sunyugor. Et de se l'approprier pour la bonne marche de notre quartier Kercher Ibrafal. Je serai, je ne pourrai terminer sans remercier toute la population de Djourbel, particulièrement celle de Kercher, la presse pour le travail remarquable, avec une mention spéciale au parrain à la marraine et aux membres du mouvement qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de l'activité. Je remercie également Monsieur le ministre d'avoir honoré votre présence chez vous, chez vos frères, chez vos amis, chez vos parents, que cher. Je remercie encore Monsieur le représentant de l'AME, qui est une structure étatique qui œuvre dans le sens de l'électricité avec une faible consommation et en même temps aussi accompagné de son directeur administratif et financier, je vais nommer Abdou Khadr Diop. Encore une fois, si vous me le permettez, je remercie ma chère femme qui m'a donné ce joli boubou aujourd'hui et... Je la remercie encore une fois je félicite tous les membres du mouvement ànd defar suñu gox je remercie tout le monde.